Mouhamadou Ndiaye Doss bisimila ndakaar wóoratul ba tax ñu bari nelawtuñu ba yandoor jàngal la tribune benn nit lañu ñu jàmpaak eh, ca point e, dafa mujjee ñàkk bakkanam sunu dëkkandoo yi teg ci ne eh, ci lu matul ñetti fan ñaari nit eh, samba yi fàtt nañu leen tribune yéen kaay ci mbir mi ne ki rey ak ki ñu rey ñoom xamante nañu bu baax a baax ki rey sax bi ñu ko laajee dafa wax ni ki mu rey dafa doon làmbaatu benn soxna bu ko jege lool sax ba tax mu mujjee lépp ay fanam lii kilifa war nañu cee wax lu ko mooy mbir mi dina ëpp ay loxo eh, li ëppi loxo Euh, mooy doxalinu gouvernement Macky Sall ñeenti weer gannaaw bi ñu leen fale lamba tëñëx tëñëx rek la ñu nekkee euh, li xew quotidien ne ñeenti weer bi ñu falee Macky Sall ak léegi euh, gàcceel gàcceel na ñu bari ci askan wi amoon yaakaar ci moom ay ministre conseil yu sakkan ba ñu bari amuñu bureau ca palais ba tax am ci ñu ne dañoo bëgg a tekki seen ndombal tànk nde dañoo jàpp ne seen pal gi joxe bopp rocci làmbañ lay gën a nuru ca ma xebore tekki ne Macky Sall ci tànki Abdoulaye Wade yi lay jaar nde mi ngi tâtonné rek li ci gën a yéeme di lu ñu ne Arona Dia nit ñaa ngi riir di ko wutali ngir ami ay poste ay CV la ñu koy jox ndax dañu ne moom ku am baat la ca palais de la république li tubaab di duppee ingérence am na ci mbir mi te ingérence baaxul cim réew ba tax le pays au quotidien ne Macky Sall kenn du moom ay mbokki boppam dong lay fal ak i ay goroom ñoom ñoo fees dell ca pale ba ma ngay fal rek de ay tantaam ay ndijaayam ay doomi ndijaayam ak doomi bàjjam di ay cousin ay goroy Macky ak ñeneen ak ñeneen ma nga leen di fal rek bu ngeen bëggee sax ma limal leen ndax Mansour fay goro la délégué à la solidarité nationale lañu ko def Abdoulaye Timbo cousin la mooy DG FNPJ Abdourahmane Seck tonton la ci Macky Sall mooy PCA bu Petrosen waaye Abdourahmane boobee sax ma nga cee indi ay reeral wax ni yàgg naa doon PCA ndax moo jiite woon SAED te boobee xamul woon ne Macky Sall dina mës a jiite réew mi. Daouda Faye ñu gën ko xam ci mu laaj gin moom rakk la ci Mariam Faye daañu ko fal ci lu dul yàgg dara. bari na bari waaye bay jéggi dayoo ba tax sax le pays au laaj Abu Abel Thiam euh, mu ne moom ci nomination yooyee euh, xamu ci dara ba tax yéenekaay bi di l'enquête ne équation Abdoul mbay mën naa indi ab doyanti di réajustement ministériel euh, ci gouvernement bu Macky Sall moo ne de ñeenti weer dong la ñu amagum ci biir réew mi ba tax Benno Bokk Yaakaar ñu bari jàpp ne ci tas la jëm jàngal le populaire fii ci ndakaaru xaajaloo am na lépp ndax bëgg ay toogu ci sena bi Bamba Fall adjoint maire bu ndakaaru bokk ci parti socialiste moo jiite liste Benno Siggil Ndakaaru Sénat bi sax indi na coow coow lu déggi dayoo ndax ñu bari dañu bëgg ni Sénat dañu wax ni Sénat bi dañu ko fi war a jëlee ni ñu ko waxee woon ci assises nationales yi am na ñu ne assises yooyee sunu ginnaaw la nekk kenn dootu ko fi jëfee ndax ki taxoon ñuy xeex jëlee nañu ko fi kon Sénat bi nañu ko fi bàyyi ndax njariñ laa nga ca kanam l'observateur l'Obs ne élection sénatoriale yi séddale bukki la séddale bukki dëggantaan la sax ndax Macky Sall njiiti réew mi moom sédd na boppam fanweeri département ak juróom-benn parti ànd ak moom juróom-ñett ya ca des mu boole leen ko. neexul nag waa Benno Bokk Yaakaar ba waa parti socialiste woote nañu ab ndajem d'urgence di maanaam bureau politique ba am nañu fi fippu ne dañuy taxawal seenub liste la soleil ne moo taxit ñaar fukki liste ñoo nar a soobu ci élection yi war a am fukki fan ak juróom-benn jeen bokk yaakaar di ci fësal seen ñàkk ànd ci investiture yi ak ki war a jiite Sénat bi kenn bëggu cee des ginnaaw yéenekaay yi saar bi ne euh, Tanor Dieng ma ngay négocier ngir mën a jiite Sénat bi sa sekk moom euh, mi ngi ne tekk euh, di wër gaañ gaañi ki ne woon tekk ni muq ci këram ndekete ma nga cay def ñaawteef di ñànke ñànke bàyyi ju doy waar la ndax dafa sëggoon ci ay doomam ji leen yàkkataan rek ba sax nee ñu am na ci doomam joo nga xamante ni am na doom ju am juróom-ñetti weer ab liir la nee ñu ñànke moomile dafa tëjoon doom yi ma nga dëkkee ca Kër Masaar doom yi kenn daawloon gis biti fiiroon lool ndekete ma nga ca sëgg di def lu dara jarul ba mu demee ba ca kanam ci la ñu gis ne doom yi wan nañu lor te kenn xamul ku def loolu le doom ju ndaw ja ba mu demee ba xam ni moom fukki at dong lam te bu may tuul fi magam yi jaar dana fa jaar moom dafa daal di fàq nangi fawo gone googee fàq nag moo siiwal baay ba di ñànge ba jamono ji mi ngi ci loxol yoon